suñu sañoon mënoon nañ ko def bu yàgg buggoon nañ ko def bu yàgg waaye xam nga rek yàlla moom suy jël du tàggoo dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana euh, lu tax Gaston Production jël décision boobu def ko ku def lu rëy am lu rëy ci bës bu rëy donc ñi ngi jëm ci bës bu rëy muy Balla gay Boy Niang mu nekk journée boo xamante ni ñëpp a koy xaar Sénégal di ko xaar waa diaspora di ko xaar donc ñu koy xaar fu ne euh, drapeau bu toll noonu mënul woon nekk ci bés bu tuuti comme ni ma ko waxee rek ku def lu rëy am lu rëy ci bés bu rëy donc euh, sama xarit sama frère Waly ñëw ndeysaan ci restaurant Le Calom euh, nekk au Mariste fii ci immeuble Scorpion ñu leen di remercier au passage de nous avoir reçus hein, pour ñu mën a def suñu remise de drapeau

bi nga xam lan moo tax mooy li ma la wax rek ce fut un monument fii ci dëkk bi mm-hmm. dafa def lu rëy ñëpp reconnaître ko mm-hmm. parolier ban nañ ko ba parolier ay wayam ba léegi ñu ngi koy déglu mm-hmm. di ci jàng mu ci yar ay doomu sénégalais ku déglu wayu Thione Seck rek xam nga ne que mu ngi lay yar ci dara wala mu ngi lay jàngat ci dara donc loolu dafa

gisulee moom tëgg kenn ku dul waali ndax xam li ma xam donc macha allah. lan euh, li ma marqué mooy lu marqué Sénégal yëpp mooy lu marqué képp kuy doomu Sénégal doomu réew mi Thione euh, daf comme encore une fois damay répété rek lu mu fi def moo rëy. lu mu fi def moo rëy donc ku def lu rëy rek am lu rëy loolu donc loolu loolu daal mooy mooy kii bi donc lu rëy li mooy mënuma tëgg kamba bu toll ni Balla Gaye Boy Niang ma bëgg remercier suñu papa chon donc fu ma ko koy remercier moy ci combat bi gëna mag ci saison bi moy bi ni machallah allah. réew yow la ñuy seetaan di la déglu ngay ngi lay nuyu Modou di nuyu Makan di nuyu kep ku ñu seetaan di ñaan jàmm ci réew mi di wax ni sek ñun famille Thione Seck kontaan nañu diaspora bi kontaan nañu Sénégal kontaan nañu alors euh, drapeau bi mu tuddee suma wajur di ko woy Papa chon ni mo juree nan la makan nan la juree kenen ak donc le 1er janvier mom saddi bu soobee yàlla dina saf marine wa bu soobee yalla ma may profito ci bes bi rek di wax Makan jërëjëf parce que maag moom laataa combat bi and nañu ci ay bes yu bare mosuñoo werante te luma ma sa bëgg rek loolu la bëgg momit lim bëgg rek loolu la bëgg donc yalla mo ñu bolé ba noppi ñu bokk bay muy Gaston garçon ku ne xam ne soo tuddee waale mu ne sama doom la soo waxee waale dara mu ne bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur sama doom la bàyyam wu fii donc vraiment loolu euh, mi ngi koy wane ma ngi koy ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér ah. maa ngi nii ak Samy Thioune di suñu kilifa suñu magum géwél ah, suma manager Amath Brat Ndiagoro ah vraiment drapeau bi drapeau bu ma neex la waaye ñun famille Thione Seck ay doomam yàlla dafa dogal bi con ki àdduna ñi mu bokk ñi mu bokkal langue musique bëri nañu bëri nañu lool waaye dafa am ku ñu ci marqué muy Ismaël Lo tabaski bu jotee balaa mu rey xaram day ñëw suma kër yaay ba pare korité i dem bés bu mag i dem pratiquement tous les dimanches day ñëw donc euh, drapeau bi dama ñaan makan rek ñu jox ko Ismaël mu recevoir ko mand ak mom ñew waaw parce que lolu moy li jaadu bu doon disque d'or la it non la ko yóbbulee keur Ismaël waaw parce que yalla dogal na mo fi cion mom lañuy gis ñepp bax ñepp am yene waye xam nga jot fay tënk amana mom ci ñak jotam xajal na ci njabot gi ba mu feus donc lolu mu ñu ko fay drapeau bi daal moom moo ko vraiment ñu lay ñu lay parce que dama am nga mhm. ak ah. ah. xam ne ñoom nar a xëccoo mhm. mhm. ko sa bu méttee noonu. waaw euh, dama déglu. Balla muy wax mu ne dafa bëgg yaay booy ña waaw ni mu amee yërmande ci booy ña amaana mën naa wax ni booy ña noonu la amee yërmande ci moom donc ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu ñu am jom nag ñema responsabilité moi je connais Balla Gaye duma ko sosal du mu wax lu mu deful Balla dafa ñeme responsabilité et il paraît Boy Niang tamit noonu la ñeme responsabilité ñoom ñëpp dañuy wut le premier janvier ñoom ñaar ñëpp ay sportif lañu ay ndaanaan lañu dinañ ñëw comme de grands sportifs bu ñu ñëwee ku ci am ndam yàlla may la ko mu sedd ci yow guy nga yóbbu ko kër ga vraiment combat bu metti la combat bu metti la parce que dañoo xaw a méngoo ñi ñuy àndal

Eh, dinañ ñëw eh, ci dim waré nak ndax rek mo ñu war jamm lu may boobam nak bu la yalla may lu la may da ngay jël ah vraiment combat bi combat faramare ñi la <laughs> waaw donc dina ñëw avance inshallah makan lima waxon rek la xama ma wacc rek suma xarit la makaan suma xarit la def na li ko war nag na Papa Thione ni mu ma juree na la juree képp kuy ndaw di sénégalais c'était un vieux ku yaru la woon waaw kilifa bu yaru la woon. jox ñëpp cër ah. euh, lu mu bëgg wax nit dina la ko wax ci dëgg donc c'était un parolier ndaanaan la woon ah, vraiment Thione daal euh, macha allah. waaw lan ngay wax violence no violence nañ ñëw ci teg teggin ak tey ak esprit fair play xam nga làmb moom ñun ñoo ko mën a defar ñoo ko mën a yàq buñ doon laal asamaan suñu culture ñun hmm? bu ñu lu ñuy jaay moomuñu football moomuñu way xam lu ñu moom làmb awee ah, ah football Angleterre la juddu ah way moomuñu ko mais làmb moom xam naa ne ñoo ko moom noonu boo demee ci japonais ñoom simo la ñu am xaw ma ah, ah, ah waaw ah waaw waaw ku ci nekk am nga sa culture alors ñun ñoo ko mën a war a taaral mu rafet sàmm ko on a une chance nag léegi jeunes jeunes yi dañuy dem làmb bu njëkk mag ñi ñoo doon dem làmb léegi jeunes ñoo gën a bëgg làmb donc l'avenir à la jeunesse nañu ñëw ak tey ñëw ak zen ñëw yar ñu def ko ci discipline ak esprit fair play ba ku ko gis mu mën a rafet presse tamit encore une fois presse bi tamit boo ñëwee ci bés da ngay xool li rafet nga koy wane c'est très très important yàlla dafa dogal man damay tukki damay wër àdduna dangay gis match yoo xamante ni des fois Marseille Paris ñuy football mu doy waar lool da nga ciy gis ci ay portable bu ko gisee mais pas presse bu koy titré no non non parce que presque dafa graaw su tiitre rek dafa mel ñi loolu réew mi noonu lay doxee fekk réew mi doxew noonu daf ko doxee ci ay vingt minutes rek parce que ay ay nit la ñu kontaan ñi mer ñi kontaan tu donc presse bi tamit nañuy wane li nga xamante ni mooy di rafet parce que làmb li fa rafet bari na sañse yi rafet na lépp rafet na mais du chaque fois dangay ngay focaliser wu rek ci loo mën a jaayee sa sa site wala loo mën a amee ay vues wala loo mën a jaayee sa article

il faut être prudent ci li titrer avec les niveaux C'est très très important merci beaucoup ne ci làmb dafa ñëw ci làmb. bay hmm. hmm. xam ne ko ko gis wax def. Hmm. yàlla sax cinq ans la ci lay toll. bay wér bi moom lay doon à l'étranger xam nga boo nee doomu Gaston loolu mooy continuité la. moom nag yàlla na gudd fan te fekke hmm? man ci li ma nekk continuité la ci suma waajur laa ko donde lu waay dond bu dëgër waaye nit ki booy dond ci moom dondal jom ji dondal fulla gi waaye fexeel ëppale ko ngor waaw sa waajur ak ku doon jom ji donn waaye fexeel ëppale ngor ndax doomu aadama waroon nangu kenn ku la ëppale ngor ndax nit moom ngor rek ngay doxee ngor rek ngay mën a wéylee sa adduna ba doo rus ëllëg ci kanam suñu borom donc ngor moom kenn moomu ko bugul nangu kenn ku la ko waaw donc euh, le fait que mu initier def loolu indi ko ci làmb seen bon bonne chose parce que tamit c'est son gagne-pain ku nekk li ngay def soo ko su fekkee gis nga ci sa bopp c'est très très important waaye nañu fexe ba ñi koy jënd rek nañu kontaan loolu moo ci am solo ñi koy jënd gis ci seen bopp ba duñ ko gisee neneen waaw man nag euh, samay événement day daan am mais bëggaguma def pay-per-view sama choix la sama choix la c'est mon propre choix parce que lu ma maîtriser gul la bugguma ko def mu am faay après mu demee noonu dinaa xool bu makan donc bu dinaa ko xool bii bu amul faay moom dinaa songu makat waaw ku jum daanu. combat bi daal ku juum daanu. waaw ku daanu. écoute eh, dafa dogal ni man sama kàddu dafa war a net dafa war a sell parce que. mis à part Wally bi euh, woykat laa te ñi ma bëgg dañoo bare porteur de voix la donc euh, li a mën a xam daal mooy ku jum daanu combat fulla la sami ma ñëw combat fulla la combat fayda la combat Pastef la combat respect la ku jum daanu waaw xam ngeen ma man du ma du ma du ma waaj man sama man man du ma waajantu du <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah Samy waaw.